salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen ñëpp di ñaan ngeen dem abonné suñu chaîne YouTube King Ouse et Ngary xibaar yu wér te wóor dina ngeen ko fa fekk ci waxtu bi ngeen ko soxlaa ñu ñëw ak yéen ci benn taxaw seetlu muy ñaari doom yoo xamante ni mën nañu ne ay doomu Sénégal lañ ndaxte d'origine sénégalais lañ muy kan kii di Manan Sarr ak kii di Sofiane Diop Manan Sarr moom ma nga ci Porto Sofiane Diop mu ngi fii ci Monaco kii di Soufiane Diop Monaco mu ngi ko jëndee woon Rennes indi ko mu def fa benn saison mu abal ko Sochaux bu Omar Daf mu dem fa nag doxal lool ñii di Monaco ne war nañ koo mën a indiwaat nag sunu équipe bi mu doxal mu ñëw nag ca Monaco jamono jii ma nga Monaco moom Soufiane Diop di doxal bi saison bi ubbee ba léegi moom mii di Soufiane Diop am na lu ci tolloog juróom-benn but. juróom benn bit la dugal bitam bi mujj sax ci bi mu dugal mooy contre PSG mooy Paris saint dugal na bit bu boo xamante ni moo ubbi yoon wakat ngir ñii di waa Monaco am ndam kii di Sofiane Diop nag milieu offensif bu baax la li nga xamante ni Sénégal manqué na ko te soxla na ko excentré la bu la neexee mën naa ne depuis Fadiga jógee Sénégal ba léegi mennum opanget lañ fi gisoon mu am rôle bi nga xamante Fadiga mu ngi ko doon def wala kii di santi Ngom te loole gis nañ ne marché wul kon Aliou Cissé war na xool gone gi ba xam nu muy waxtaanee ak moom ba indi ko fii moom daa mel ni sama waa ji miin na Sénégal de moom Sofiane Diop. daan na fi ñëw vacances boo daan dem école école tëjee dara ñëw Sénégal vacances fii bàjjanam bàyyi yaayam France bàyyi bàyyam France ñëw Sénégal vacances fii ne loolu tax sama nekk góor yàlla pire ndax daaw ma dem sans sama yaay léegi dama dem sans sama yaay. gisuma baay gisuma yaay nee bu ma delloo France moo tax ma nekk gone la pire xale la mi nga am vingt ans il est né à Tours le 9 juin 2000 mën na amoon njëriñ Sénégal ndax mën na jouer militaire offensif mooy téye ba jox gars yi dugal wala mën na jouer sa laafia excentré ndax boo xoolee Sénégal daa am problème excentré Ismaïla Sarr gëj naa dox Sénégal te gone gi macha allah bu ñu ko woowee mën na ñëw ndax miin na Sénégal ndax baayam sénégalais 100 pour cent baayam sénégalais cent pour cent la ñuul ko ku ni man mu mel ni kon Sofiane Diop mi ëllëgug Sénégal moom mii kat war na caa mën a doxal bu baax. kon daal Sénégal mën na yaakaar lool ci Sofiane Diop ñu xool Malang Sarr Malang Sarr défenseur central la mi ngi jóge à Nice contrat am jeex fa mu dem Chelsea mais ba léegi jéegul Chelsea dafa ñëw Chelsea taw ci saison bi jeexee daa ko jël ak abal FC Porto bu Portugal instant yii ma ngi koy joué su ba léegi jël na fa seize am fa benn bii moom mii di euh, Malang Sarr ak santal bu baax la mais match niis bi mu jeexee daaw da nga ko tegal talal moom nee na carrément Aliou Cissé woo na ko te ñaar am na nu wax ba pare kon moom noppi na Cissé noppi na. kon daal def mel ne moom daal pare na ko pour jouer Sénégal moom mii di Malang Sarr. moom mii di Malang Sarr baax na lool ci équipe nationale bu Sénégal ndax ñun soxla nañu défenseur boo leen xoolee kii di Kalidou Koulibaly néew na lool doole ci défense ba ndax amul ku ko jàppale booleen leen xoolee kii di Cheikhou Kouyaté sax la ñuy wàcce tuuti mu ñëw di football défenseur te moom ab milieu défensif la boo leen xoolee kii di Salif Sané doxatul tànk ba baaxatul kon nag Sénégal war na taxaw ci mbiru kan kii di Malang Sarr moom nag équipe nationale Sénégal eh, France yu ndaw yi yëpp jaar na fa football mais tekkiwul nag mënul ñëw fii mën naa ñëw Sénégal ba léegi football si fi ndax jonganteegul ci équipe nationale bu France bu mag ba kon nag moom mën naa ñëw fii ci Sénégal te bu ñëwee fii ci Sénégal dina amal njëriñ lool kii di Aliou Cissé ak ñun ñii di ay sénégalais ndax ñu mën a am sax benn trophée kon nag ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaan ngeen am abonné wu li gën a neex mi ngi ci kanam.